alhamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursaliin sayyidina wa xabibina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala aalihi wa asxaabihi wa xulafaa'ihi wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi nu santee yàlla sunu boroom di julli ci sangu àddina ak sangu alaaxira te mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi yëkkati nuyoo bu tedd di ko nuyu mbooleem soppe boo xamante ni bi yaa ngi ñuy bàyyi xel rawatina nga ñuy topp ci Facebook bi ñu ngi lay fekk fa nga nekk di la nuyu waaye itam di la ziyaara di ñaan yàlla sunu boroom fu jullit mën a nekk ci àdduna rekk yàlla yàlla sàmmal la boppam yal na yàlla aar la yal na yàlla musal la te mosal la ñu ngi koy ñaanal mbooleem koo xam ne yaa ngi ñuy topp di ñu bàyyi xel rawatina ñi nekk bitim réew nga xam ni tabaarakallaahu dara yóbbuwu leen fa lu dul sàkku teraanga wut lu nu am ngir dimbali seeni njaboot kon nag fu ngeen mën a nekk yàlla na yàlla teral leen ci daraja yonent bi aleyhi salaatu dafa am benn jikko walla benn phénomène boo xam ni dafa xew dafa am ñaari point yoo xam ni moom laa bëggoon ñu waxtaan ci benn point bu njëkk bi mooy li Seyduna Muhammad wax ci góor gu jéng maanaam góor goo xam ni dangay am say soxna te doo leen yemale muy benn bu ñaareel bi mooy ñi nga xam ni dañuy sëy dem ba ca biir sëy bi bëggatunu sëy bi te kañuy sëyal nanguwu leen a may baat fan la tegu ñaari point yi rek laa bëgg ñu def taxaw seetlu waxtaan ci vérifier alquranul karim lan lañu ci wax wala sayduna muhammad lan lañu ci wax mbokk yi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bariwoon na ay soxna waaye ci maandoom moom Seyduna Muhammad bi muy feebar li muy feebar feebar lépp moom yenent bi daf daan wax ni fu mu war a aye nañ ko lëng mu soox dem ca néeg boobu bu ñu ko laajee loo ci jublu mu ne parce que bëggu la ameel kenn ak ku ci nekk li nga yelloo sa diggante digganteeg moom dana la ko jox benn bi soxna yi waxtaan daat ni lii muy def kat manu ko ndax feebaram yaramam mayu ko ko nii muy jaabantee ci sunu néeg yii munu ko mbaaxam ak xam li yàlla wax moo tax mu di ko def meew wéram mayu ko ko soxna si daat ni xam soxna yi daat ni xam ngeen lu xew comme saydatuna Aïcha moo gën a nekk xale nanu ko bàyyi mu dem féete nekk Aïcha comme dafa feebar ñun ñépp ñu jéggal ko ay gi ñu bàyyi sayduna muhammad mu féete ci néeg yaay Aïcha ba bi muy génnee àdduna ci néeg yaay Aïcha la génnee àdduna fi yawmi yi fi bayti aichatin xabla zawali bi chehril mawlidil idami loolu la Seydi El Hadj Malick bind nee ci néeg saydatuna Aïcha fa la sayduna Muhammad génnee àdduna loo cay jànge mooy yonent bi dafa maandu woon kon yow góor am nga say soxna waaye royal yonent yàlla Muhammad bul am soxna mukk yëkkati ko teg ko ci kaw sa seneen beneen soxna si bu ko def parce que ëllëg yàlla daf la koy laaj kullukum raain kullukum masulun an raiyatihi sayduna muhammad nee na ku mu doon ci yéen su yowmal qiyaame su ñëwee danaa ko laaj la nga la nga jiite woon wala soxna ya nga amoon noo leen doon yore góor gu nekk dinga nga yàlla wax ak moom mu laaj la ñaari soxna yi nga amoon noo doon doxalee ak ñoom mbokk yi am na ñoo xam ni bu nu xasee takk ñaareel fàtte nañu aw bi am na ñoo xam ni danañu takk ñaareel duñu ko considere comme soxna te ñaar ñépp nga war a yemale yonent bi daf ni nañu yem ci ay gi yamaleel seeni doom lépp looy def boo ko mënta def ñaar bu ko def benn ñu ne ko lu tax mu ne képp koo xam ne dangaa jengoon ci say soxna yowmal qiyaam soo jugee ci sa bàmmeel da ngay de da ngay bi nee na képp koo xam ne dangaa jengoon ci say jabar am koo féeteel ignoré kenn ki boo dekkee yowmal qiyaam da ngay paralysé waaw yow jigéen sa jëkkër féeteeg yow di la defal lu mu dul defal sa moroom nga teg ko ndam di ci tiitaru di wan sa wujj ni ko man lañ gën a yëg di wan sa wujj ni ko man lañ gën a faale topp nga àdduna def nga àdduna muy kër bu fekkee am nga xol bu laab nekk jullit dëgg yow yaay digal sa jëkkër mu bañ a jàdd yoon jigéen ju baax noonu lay mel dafay xam ni jëkkëram ji lii muy def du dëgg du yoon mu considéré ko mu conseillé ko parce que sa jëkkër war nga mën a doon première nit ki koy conseillé ci àdduna bu jaaxlee nga dalal ko bu bu amee lu ko jaaxal nga waxtaan ak moom di ko xelal comme na sayyidatuna Xadija doon def ndax ba sayyiduna Muhammad demee ca ma gis fa lu ko jommal mu ñibbisi bis di yuuxu bu fi fekkul woon jigéen ju baax jigéen ju dal jigéen ju am expérience kon yonent bi mën nga ni xel mi mën naa dem waaye kam fa fekk dafa dal muy sayyidatuna Xadija bi mu agsee njol màkk di yuuxu sayyidatuna xadija da ko ni jàkk ni ko xam nga lu xew lam yuxzikallahu fi daareeni laa mi dalal yow sayyiduna muhammad ki nga fi fekk mate na ko te dina la dalal doo jaaxle guddi doo jaaxle bëccëg jigéen dafay digal jëkkëram lu baax am na jigéen ñoo xam ni seen jëkkër yi dañuy sàcc ay ñëw ci ñoom mu leer na leen yow ayewoo nga nangu ko sëriñ Babacar Sy xaw ma Seydil Hadj Malick am na ci koo xam ni mas na aye benn néeg ci néegi soxnaam yi génn fajar di dem jàkka ja fàtte torcham torche bi muy niitee mu fàtte ko te génn na ba ci bëtti taxaw fa ba mu leer xam nga lu mu fay taxaw day xaar ku romb mu yónni la fa ñu ne ko lu tax demoo jëli ko mu ne fégal naa fa mbokk yi kuy sàcc ay xamoo lislaam yàlla li mu ñu dénk lim ñu ci sant mooy nanu ci maandu boo yoree ay soxna danga leen di yemale bàyyi leen bu ngeen amee ay soxna ka ca ëpp teraanga di teral seen yaay yi jënd seen waa kër yi ngir intere ngeen jël ko teg ko ci kaw ki fi doon muñ walla ki amul teraanga bàyyi leen loolu loolu baaxul dangay ngay sëy ci kër nekk jàmbaar bale guddi bale bëccëg yóbbu hôpital guddi yóbbu ba cëg teraanga bu ne nga koy def dañ lay takkal wujju la xab a ëpp teraanga man loo manul mën a jënd ay iPhone di ko maye mën a maye ay diméti jesneer ñu koy gërëm di la xarab fàtte la yow mi fi nekkoon di sonn bàyyi leen toog ak seen soxna yi di tudd beneen soxna baleen ko góor gu am personnalité du toog ak jabaram di tudd ki ci des ñàkk personnalité mi ngi tàmbalee ci toog ak sa jabar waxuma la am audience su may ko muy tudd kële loolu ci ñàkk fayda la bokk mais yow ci sa wàll bopp yow góor yow lañu waroon di tuddal sa beneen soxna nga ne eh, nekku fi bàyyil turam waaye yow yaay toog ak sa soxna di yàq ki ci des su ma ayee ci yow laay nekk su ma ayee ci yow laay yëg ni am naa soxna su ma ayee ci yow nangam ak nangam am na góor ñoo xam ne ñoo tas seen kër kër personnalité ak fulaak faydaa koy yor góor gu bëgg a takk takkal ñeenti jabar boo ko mënee bul yem ci benn jabar boo mënee ñaar takkal ñaar boo mënee ñett takkal ñett mais ci fulla ak jom ak personnalité fulla fayda mooy yor kër mais yor say jabar jeng ba ñëpp xam ne da ngaa jeng yow bu doon da ngay jeng yem ci soxna si nga jeng sax ñu ne amul problème mais da ngay jeng ba pare jengaale ci ay doomam boo génnee ay doomam ngay jëndal sërica boo tukkee ay doomam ngay jëndal sërica booy voyager moom ngay waxal am sa ñaari soxna ñu yem ci yow te li kii xam ci yow ki ci des xamu ko féete kenn ki sa bien yépp moo ko xam ki ci des nga ignoré ko te ñoom ñaara yem ci yow ay soxna ku leen mënta yamale c'est pas nga leen di boole ku mënta yamale say soxna c'est pas nga leen di boole boo mënta maandu yàlla maandu la cité yàlla ba muy wax xoolal maandu la wax wa in fa waaxidatan parce que yàlla xam na ni situation wu ñeenti jabar maandu moo fay dox maandu ku yor ñaari jabar fokk nga maandu fokk nga am fulla fokk nga yamale say soxna mais féete kenn ki ignoré ki ci des doo ko defal dara am na jigéen ñoo xam ne xamaluñ seen jëkkër dara lu nu bëgg a xam keneen kee ko xam féeteeg moom te en général ki fi sonnoon xaar ko fi doo ko teg muy nit te lépp fi la ko fekk bi muy ànd ak yow amoo tus dërëm amoo ko mu toog fi di ko xaar toog fi di muñ nga xëy xëy ki mujjee ñëw bëgg a aki sa lépp moo xam say kër moo xam say compte banque moo xam li nga am Sénégal gii nag bukki amu fi gaynde amu fi segg amu fi ay nit a fi am nit fii kenn du fi malaaka waaw kenn du fi malaaka malaaka amu fi réew mi ay nit njaay képp a fi nekk li fi nekk la wax dëggu yàlla gi moom la wax kuy dee nga dee kuy dund nga dund kuy xëm nga xëm sa problème la mais kenn mënuñoo déstabiliser ci dëggu yàlla gi nuy wax loolu chaque jour ma wax ko ki ngay suivre boo boo bu la neexul woon doo aimé page am page bii pour nga jot ci waxtaan wi il faut nga aimé dugg deful doo ci jot diw neexu ma ba pare aimé loolu mooy jaaxaan di saw sa bopp ngay saw ay fen la il faut di gis nga xam nga lu xew ku ci yor ay soxna yamaleel say soxna boo ko mënul jarul ngay takk am na jigéen ñoo xam ni li seen wujju xam ci seen jëkkër xamuñu ko yenn saa yi ñu lay layal kee moom ma gën a bëgg kee moom a gën a respecté ak lu mën a xew ak lu ndaw si sikk sikk sikk sikk sikk sa devoir def ko bul ma layal ay kee moo ma gën a yërëm kee moo ma gën a jàppale d'accord mais sa devoir yow mooy yamale def ko sa devoir yow liñ la sant mooy yamale loolu la la lislaam wax mën ngaa takk ñaari jabar takkal bul signé benn jabar bul topp sa xol bii ba siñe benn jabar looy signé am na loo xam ni boo ko mënee sax bu ko def looy signé ci benn jabar ànd ak jigéen ngeen dem ba mairie ba nga toog mu toog mu ne la ndax ci man nga yem nga ni ko waaw mu ne la signé ko nga signé ko ndeysaan jigéen jigéen mi ma xam ak xelam mu gàtt mu wóor ko ni yow kii du ma mas a takkal wujj ci àdduna wala takk wujj gi ak prison gay ànd xam nga ni kii lu ko neex lay def sa xef yi lay toog parce que en général boo signé doxaan gu metti ngay mujj di mottali mais takk moom doo ko ñeme waaye tàggoo ay réunion yu dul jeex cérémonie yu dul jeex ak téléphone oto téléphone boo xam ne ci oto bi lay yem du génn boo demee bay gaare daat ni alu maa ngi gaare ba suba ñu déggantewaat yooyu boo ci bëggee di nekk rek signal benn jabar parce que da ngay dem ba. bëgg a takk jabar te ñemewoo ko ŋàng te bari na koo fii gis muy guddal sikkim ak ngandal affaire benn la signé benn kenn amu ci fitu takk ñaari jabar ku ko ci def am problème looy signé man nan la góor di jàkkaarloog jigéen di ko confirmeel ni ci yow laay yem man lii ba tey daf maa def problème billaahi wallaahi tallaahi ba léegi bu ma gisee ku ko def dama koy xalaat ànd ak jigéen di signé mu naan man sama parce que ndam lañ koy def sama jëkkër benn jabar la signé man ak moom monogamie préparation de bien xaw ma lan mooy bu amee xaalis maak moom a koy bokk xaw ma amul droit def ci eh. am leen taxawaayu góor am fullaak faydaak personnalité ci seen bopp yonent bi nee na jullit dafay dëgër jullit dafay bëgg boppam fii koo fi takk ni ko ci yow laay yam su fii lay toog teg fi lëwal ak deuxième di attaaya ci sa ci sa kaw bakkan bi mais loolu moo fi am kon maandu leen yamale seeni soxna yamale seeni soxna ah parce que nag ëllëg yowmal qiyaam ku ci nekk wax naa la ko sànq yàlla dana la laaj noo yore woon say soxna ala kulli xaalin danga ko dégg kon góor góorgóorlu leen ngeen yemale seen soxna yi xam nga di wujje di wujje gëm ak gëm wujje li may wax ni am na ñoo xam ne dañ koo gëm am na ñoo xam ni gëm nañ ni wujje mystique a koy def waaw mystique jàppee sëy bi mystique ñeme gàllaaj ndeysaan da dem ba traumatiser sa àdduna dafay yàqu muy lépp ci gàllaaj nga koy mottali ko loolu baaxul adduna du kër déegi du tàggatoo dangay ngay jékki-jékki ñu ne la diw dem na nga naan lu ko daloon nit ñi war na noo soppeeku bàyyi xel yàlla bàyyi xel première guddi gi ngay fanaan ci bàmmeel te kenn du la fa fekk say jëf dong lay wéttali waaw bu ñu nee say jëf yu baax lay wéttali te bari la woo ko foo jëm ku lay wéttali nee ma say jëf yu bon yu bon yi nga doon def ci àdduna jàppeeku kër pour yow doo faatu pour yow daal kenn du la lëmas perkaal bii tuur la parfum dugal ci pax mi pour yow kenn du jël suuf si teg ko ci sa kaw pour yow kenn du la tiim ñu lay séddaleel ay dog pour yow kenn du génn armeel yi bàyyi la fa nga war faa fanaan yu bon yi ngay def dem ci sëriñ fay cent mille deux cent mille di yàq doomu aadama bi tas yu jàmbur bi liggéey sa wujj dëddale kook jëkkëram ñaar ñu nekk ci jàmm nga ni bu nu am jàmm naawtal yi ñuy def yu bon yooyu est-ce que kuy xalaat sa tëraa yu bàmmeel di ko def tooñ gi ñu nekk ci suñu biir jàpp gor di leen xas jàpp gor di leen saaga jàpp dor di leen wax lu ñaaw koo toogal yaa ngi ci sa deru moroom jëw rekk amuñu benn yitte nanu bàyyi xel yàlla kon nanu yamale soxna yi ku ci am ay soxna yamale leen bàyyi leen seen jëng gu metti gi seen soxna yi am na ci ñoo xam ne sonn nañu parce que sëy dafa metti da ngay sëyi jàpp ni pour nga am bànneex ci kër gi walla pour nga yaatu il faut da ngay tarbiyu sa njëkke te njëkke bokkul ci sëy lan mooy njëkke balaa maa dee ñu naan waaw sa njëkke nangam nangam patati patata sëy ñaar ñi ko séq la concerné mais léegi pour nga pour nga pour nga pour nga pour nga pour nga yaatu am jàmm ci kër gi il faut ngay ngay dunguru sa njëkke il faut nga koy tarbiyu pour bis bu ngërëm amee xew mu taxaw ci diggu géew bi di la gërëm bu ngeen dee juróomi jigéen di sëy ci kër wala ngeen di siis jigéen di sëy ci kër ña ca dàq dunguru seen njëkke ñoom la ñuy féeteel parce que njëkke yi lañu jël teg leen palaasu jëkkër yi te duñu ay jëkkër te am na ñoo xam ni nag seen deret <laughs> dunguru am na ñoo xam ne seen deret mënul topp ci ginnaaw kenn di yappar yappari buñ ko bëggee it seen deret moo ko mënul da nga gis njëkke yoo xam ni comme si que ñoom ñooy boroom kër gi ñooy dogal ñooy wax ñoo lay lijjanti loo nekk loo nekkeek sa jëkkër tisi bi génn ñoo ñoom ñoo la ko njëkk yaa ko njëkk a am nangam nangam nii lay waxee ak sama yaay nangam nangam woo seen mag yi nag di leen influencer sa jabar ji de sama yaay nangam ñun amuñu ku dul sama yaay di la jaxaseeg sa jabar nga nekk bitim réew nekk dof nekk nitu benn nopp lu ñu la wax ci nit yónnil yàgg te teey sa soxna da nga koo takk ci farata yàlla ak sunna seyduna Muhammad bu bëggul sa yaay libeere ko mu dem mais boo koy libéré teg ko ci condition in jaakum fasiqun bi naba in fatabayyanu sayduna muhammad nee na buñ la waxee information bul tàyyeel vérifier ko sa jabar lii lay def bul yàkkamti déedéet xoolal bul naaw teeyal teeyal dangay ngay teey gëstu ko ba am ci lu leer naññi waaye sa jabara fi def nangam sa jabar nàngam lay def sa jabar nàngam sa jabar nàngam nga jël ko rek yanu ko nga jël ko rek yanu ko teg ko ci kaw woo sa jabar aalu ci kawam yëgul tinu parce que kër yi dafa bari ay clan yéen ñi tukki il faut ngeen xam ni seen kër yi dafa bari ay clan ku ci jubluwul sa jabar du la wax lu baax ci moom il faut ngeen yeewu seen yaay yi am na ci ñoo xam ne jubóowuñu ak seen tante yi seen doomu baay yi am na ci ñoo xam ne jubóo wunu seen wujju peccorga yi am na ci ñoo xam ne jubóo wunu il faut ngeen di tey ci information yi bu ngeen dundul ci kër gi balaa ngaa xam dangaa ñibbi si vacances def fi deux mois ci ngay xam ku nekk jikkoom li fekk yaa ngi bitim réew di envoyé Orange Money ak Western Union xoolal doo xam mbonu kenn il faut ngeen di tey il faut ngeen di dal il faut ngeen xam ni seen soxna yi yàlla leen booleeg ñoom paaka ngeen di déglu seen sœur seen njëkk yi parce que da ngay gis bu xew amee ku ne di jéem neexal njëkk bi pour mu wax ci moom ñu naan lii la defal njëkk bi lii la looyu dafa am sens ay concurrence ay ay ay jëndaate ay may na njëkkeem bi nàngam mais yooyu baaxul nit loo mënta demee naturel bu ko def am na ñoo xam dañoo ragal seen njëkk yi bu seen njëkk yi ñëwee ci kër gi duñ am jàmm duñ nelaw bu buñ doon nelaw bëreet la ñuy def génneel ko ndox gaaw pour lan parce que da ngay bañ mu ñibbi ne mayuma ndox bi mu ñëwee ci kër gi bu ñëwee ci kër gi fekk ngay nelaw noo koy mayee ndox bàyyi leen ci xel sëy boo xam ni comme mbugal te lu baax loo fi mën a sonne nag naa la wax benn secret bis boo leen wanee gannaaw wala divorce su ñëw mu mel ni mësoo koo def kër yi kalan la bari ku ñëw ak say teraanga nag am ñépp parce que intérêt la nit ñi di xool pas yàlla intérêt ku leen may jesneer am leen ku leen may téléphone buñ mën a sinabee sinab bu leer am leen ñu taggal la sa juróom ñaar fukki junni yi maam ku ànd ak ñoom ci ngor duñ la teg fenn il faut di la vérité ngeen yeewu xam li xew surtout yéen ñi nekk bitim réew daf ci bari ñu ñàkk seen soxna te ci ëral lañu ko ñàkkee seen soxna yi tey leen ci information yin leen di jox ci ñoom tey leen ci information yi leen di wax ci ñoom nit du nekk ku jug wax ak moom xam nga ñàkk personnalité mi ngi tàmbalee yor sa téléphone ku ne nga ne ko kar mu lay wax ci sa jabar mais loolu loolu du respect am na ñu ne ci kër yi ñu ngi bëgg a dee parce que kër goo xam ne boo fay sëy sa rakku kër yi jàpp nañ ne yaa leen war a fóotal jàpp nañ yaa war a bomb seen néeg ah téeméeri charge ñu tegandoo la ko. te benn du échec yépp ay réussir sinon ñu ne baaxoo il faut ngeen organiser wu waat yërëm seeni soxna jàppale leen ñoom itam ñu comprendre leen bu sa jëkkër nekkee àll dangay fexe ba bañ ko di wax information bu koy traumatiser buy tax du mën a liggéey waaye xat ga lay na nga vocal am na ñoo xam ni yàkkamti wuñ information jot ban téye seen téléphone allo nàngam nangam xaw ma de lu xew waaye diw de nangam nangam sa jëkkër liir ko du am jàmm. dee leen informer seen jëkkër yi jàmm ak salaam dee leen informer seen jëkkër yi lii defar te bañ di leen influencer lu leen di yàqal. góor gu ci nekk di liggéey ba mu yàgg jékki-jékki téléphone am sonné vocal mu tàppe déglu yaa ngi foofu de waaye jàmm xewul ci kër gi nangam ak nangam yàq nga liggéey. yàq nga liggéeyam informé leen ñi ne ci àll bi jàmmat salaam te ngeen wàññi kalan yeeg complot yi ci kër yi defante bi àdduna amul solo kenn du fi sax kenn dëkku fi kullu man alayha faan wa yabqa wajhu rabbika dul jalaali wal ikram il faut ngeen bàyyi ko xel kon nag thème bi ma doon indi tey mooy yamale yamale seeni soxna jéng gu métti gi ndax Seydina Muhammad nee na mm. boo dekkee di nga paralysé thème bi ci des muy góor ñi nga xam ni seen jabar yi dañ naan leen may ma sama baat ñu taxaw lànk te teguñu ko fenn fenn lu dul seen bànneexu bakkan dinaa la fi téye duma la may baat doo mën a sëy doo mën a dem fenn sama thème bii di ñëw incha allahu taala ci loolu lay doon ñaari points yi laa bëggoon a boole waaye waxtu wi ñett nañu sama prochaine waxtaan incha allah loolu lay doon ñu décortiquer ko fase ci lislaam kañ la la ndaw si di araam kañ nga koy mën a fase ba pare jotaat ci te trois mois yi matagul wala gisagul ñetti réglam boo fasee ban fase ngay def ñàkk ndaw si tifaaqal yooyu yëpp ak jigéen bu bëggee ñaan baat ñaan baat ba sonn nga téye ko coloniser ko ne doo ko bàyyi lan mooy solution bi loolu lépp ci sama prochaine waxtaan laa koy indi incha allahu taala maa ngi ñaanal ñëpp yal na yàlla defal ñëpp jàmm ñu ne ci paas bi nekk ay soppe nekk ay nit ñu baax di ñu ñaanal di ñu bàyyi xel di ñu defal lu ne yal yàlla sàmm leen ñi fi nekk te bëgguñu lu baax bëgguñu lu bon bëgguñu lu baax lu bon la ñu bëgg parce que danoo bon boo bonee lu bon ngay bëgg yàlla yàlla soppi leen defar seen jikko. ci daraja yonente bi wasalaamu aleykum wa rahmatullah